waxuma bu kenn topp sëriñ waaye sëriñ bi ni moo lay delloo ci yàlla waaye kañ la lay delloo ci yàlla bi ñu la ëmbee ba jur la ba pare teral leen seen way jur teral leen seen i way jur aljana ji ngay wuti Tiwaawan wala nga di ko wuti Tuubaa mu ngi ci biir daan mun a ku ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bëgg di toroxal sa waaye yaay waaye yaay ku koy def sa àdduna du jàpp donte ne du jullit bu ko topp ci pas-pasam wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun bu boobaa fala tutiahuma waaye wasaaxifuma fi dunia maarufa mais mbokk yi Sénégal li ko dal kenn xam ko kenn xam ko xoolal Seydina Mouhamed ci foofu bu ma ko topp ma ko toppee du ma noppi ah Seydina Mouhamed benn xaleen ko toppee màkk musta manqué ginnaaw rasulillahi benn yoon benn yoon ba benn bis mu julli gaye ci ginnaaw Seydina Muhammad def naa fi laam yëpp tàllal rasulillahi loxo dellu këram bi muy dugg si kër gi mu dajeeg yaay ji ci bunt bi au mu bàyyi yaay ji génn mu tàncaloog moom yàlla rocci la woon ci dënn bi ba mu set bàyyeelu ko dara xale bi xëy jàpp fajar ba pare bëgg wax ashhadu an laa ilaaha illallah dara sottiwul te musta manqué ci ginnaaw rasulillah yow nga topp sëriñ fii rek ba doon topp bi nga xamee ni loolu am na booba jàkk am na njëriñ li tax ñu daje kenn mënu ko wax sawwu yéen ilimaan yi sawwu waxidu kalimatakum allifu est-ce que mu ngi ku julli fagg say tax Sénégal malgré 14 millions yi 13 millions il faut se sonder sonder sur noor la wala fooy takke sëy foo koy tase fooy jullee néew foo koy miraase ah waaw ku séddale miraas. yàlla kon maanduwul. ñun dañuy xuloo. ah. xuloo bi la dem moo tax ah, waaw mais kon yàlla maanduwul. ci séddale bu fekkee daf ko teg ci li yàlla wax. nga ni ko maanduwuloo ku maanduwul kana. yàlla nga waxal yàlla nga waxal mbokk yi ñun ñun daal ñu ngi. Mm-hmm. ñu ngi daal bi nga xamee loolu am na. waa ji ànd ak xale bi jàkka ja yeewu fajar jaar fa pour ñu ànd. mu ñëw mu ne ko demal jiitu jiw ndax man mënatumaa tudd yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa lay sa ca ca ca ca mat ak lépp bi mu jullee ba sër ma ngoon bëti place bi xale yi daan toog mu geesu gisul xale bi mu ne ah, xale bi doon bi ñëwoon bi da ñëwul tey ñu ne ko dafa feebar mu ne déet fii la jullee bi waa ji di ànd ak xale bi nett li ko kaar mu ne ko xanaa di julli ñu ne ko jullee tax nga xam ko xoola rasulillahi xale bu ko topp ca màkk di tër tëri ba ñëw ak moom Medina julli gee ba julli sa sabaa wii sa dem di tëri nga dajeeg sa waajur ci buntu respecté woo ko ba yàlla rocci la woon ci dënn ba yëpp yow nga topp ci sa waajur uffin wala taqul lahuma wala tanharhuma qawlan waxfid lahuma mina wa qul rabbi irhamhuma rabbukum yàlla daa ngi cekku yàlla ngi tëkk li nga denc te munoo ko wax sa ndey te mu nekk sa xol di baj-baj yàlla nee na mën nga ko wax man maa la ko tere bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam baax ba dañ ni bërit jóg waaxu wut si kër xale bi ñëw ba ci xale bi ni ko neel laa ilaha illa mu ne ko yonente bi mënu ma ko wax kan moo ne ko nee laa ilaha illa allah kan moo daan tuubloo nit ñi mu ne xale bi nee laa ilaha illa allah xale bi ni ko mënu ma ko wax ñu wooyi ñu ne ko wooyee yaay ji mu woo yaay ji mu ne ko waa bu sa doom bu ma tooñoon te mu wóor na ni boo ko jéggaloo ma jéggal ko nooy def xol ndey daal jóg mu ne ko kon ma jéggalu ko yonent bi bañ mu rus ko mu ne ko seedalool yàlla ni ko jéggal mu ne yow borom bi subhanahu wa taala maa ngi lay seedaloo ni jéggal naa sama doom ji mu ne ko wax ma ni seedaloo ma ko man rasulillahi ba bu ëllëgee ci kanam yàlla doo ko wet mu ne ko yow rasulillahi maa ngi lay seedaloo nga jéggal naa sama doom yonent bi ni wëlbet xale bi ni laa ilaha illa allah waajur dafa foor xoolal tariqa bi bu fekkee da nga ko bëgg a jël te mun a respecté say waajur kenn warlu ko jox ñun ñoo ti bëgg i taalibe mm-hmm. ba tax ku ñëw ñu jox la ko waaye Seydil Hadji Malick kenn mës ta ñëw te ànd ak sa waajur bu jox la tariqa